mbokk yi alhamdulilah incha allah ñu ngi war a jël aay bi jëkk ci suuratu Gaafir suuratu Gaafir muy xaamiim tanazilul kitaabi min allahi al-aziz al-aliim kon mbokk yi alhamdulilah ñu ngi santaat suñu boroom ni ñu dajale ci néegam bu tedd bi àllarba ji nekkoon fukki fan ak juróom ñett ci li nga xam ne mooy weeru muharram ci atum 1438 di 19 octobre bi 2016 ñu war a jël saar bi ñu tuddee suratu Gaafir di ko tuddee it suratul muminin ila axiri kon ñi ngi sant suñu boroom ci xéewalam yu mag yi bokk na ci bunt yi mu ubbi ngir yërëm ay jaamam yëkkati seeni daraja baal leen seeni bakkaar lañ ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax mbooloo duñu daje mukk ci benn néeg ci néegi borom bi subhanahu wa taala ñuy jàng téere bi yàlla bi lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem yónni ay malaaka malaaka yi wër leen mu leen di tudd ca malaaka yi kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi ak mboole mi jullit ñu daje ci alquran kon incha allah ñi ngi jël sunu bind bu njëkk ci suratu Gaafir Cheikh Ousmane dafa nekk ci tukki ñu bàyyi ak ajun saar mu jëlal ñu bind bu njëkk incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تعالى العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فجادلوا بالباطل ليضحكوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب فكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne xaamiim moom moo xam lan la ca jublu tanzilul kitaabi min allahi al aziz al alim lii di wàcce téere bi day ma nga bawoo ca yàlla mi nga xam ne moo not lépp ca kàttanam ga mooy ki xam lépp di al aziz al alim gaafiri zamb mooy kay bale ay bakkaar wa qaabili tawb di nangu tuubu ay jaamam waaye nag shadidil iqaab di tar lool ay mbugal zi tawl mooy boroom xiiwal yi laa ilaha illa hu kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom ilayhi almasir ci moom la mujjug lépp lum mën a doon maa yujaadilu fi ayatillah du nekk mukk di dàgg sante ci aaya yàlla yi illa alladina kafaru xanaa lu dul ñi nga xam ne dañoo weddi falaa yaxruruka taqallubuhum fi lbilaad bum la war mukk seen wëlbatiku gi ay seen dem ak dëkk yi ci biir dëkk yépp kazzabat qablahum qawmu nuuxin wal ahzaabu min baadihim weddi woon na jiitu leen xeetu nuux ak kuréel ya nga xam ne ñoo ñëwoon seen gannaaw ay mbooloo ya dajale woon ñëw seen gannaaw yépp wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yaaxuzuuhu mébétoon na bépp mbooloo ca seen yonent ngiree ñu jàpp ko wa jaadalu bil baatili li yudxidu bihi al xaq ñuy nekk di dagg santeeg neen di dagg sante jëfandikoo ay neen ngir yi daal di cay sànke la nga xam ne mooy dëgg fa axastuhum man yàlla ma jàpp leen fa kayfa kaana iqaab naka la nekkee sama mbugal ci seen kaw wa kazalika xaqat kalimatu rabbik naka nii nag la dëggoo sa kaddug boroom ay lay yeye sa kaddug boroom ala allazina kafaru ca kaw ña nga xam ne dañooy weddi annahum ashaabu naar ne ñoom day ñooy ñooñu sawara mbokk saar bi ñu jàng di suratu Xaafir sunu boroom mi ngi ko ubbee loo xam ni juróom-ñaari saar yi ci topp yépp moom la ko ubbee muy xaamim lan la ci yàlla namm loolu yàlla moo ko xam ala kulli xaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mas na yónni benn armée ne leen bu ngeen demee ba jàkkaarloog seen noon na ngeen wax xaamim laa tunsaruun ay xaamim yéen day kenn du leen dimbali saar yii di ñu koy xawaamim doonte ne la gën a wér mooy aalu xaamim di juróom-ñaaru saar yi boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari ci ne mooy taaru alquran ci mooy ila axiri ala kulli xaal ba demoon tey ci Damas am na fa jàkk ba ñuy wax masjidu abi darda dañ ne ci këram la nekkoon la tabaxoon benn jàkka guddi mu fay naa fi lu bari dañ ko laajee mu ne da ko tabax ngir di fi jàng la nga xam ne mooy alu xamim ndax saar yi la mu ëmb ci ay bànneex bu lay jàngal xamal la sa borom ak yu bëree bëree bëri ala kulli xaal suñu borom yàlla ubbee na ko loolu mooy xamim gannaaw ba mu ne téere bii day mi ngi wàcce ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala mbokk yàlla ak màggaayam yàlla ak kaweem mënoon na rek daal di ñuy wàcceel fukki ndigal ak fukki tere mu jeex xam ne deux pages la waaye suñu borom wàcceel mi téere bu toll nii nekk six cent pages mu ñu ciy wax la nga xam ne mooy màggaayam diñ ci wax li xewoon di wax li nar a xew di ñu won jaww ji ñu nekk di ñu won la nga xam ne nii mooy tax ñu am yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira borom boobu moo wàcce téere bii di alquran moom mi nga xam ne mooy al aziz dara tëwu ko mooy ki man lépp mooy ki tëliwul dara ca kenn mënu ko tee def dara ca kenn mënul def lu ko neexul ndax mooy ki not lépp donte ne sunu borom mooy ki xam lépp moo peeg luy kumpo la nit ñi feeñal la ñuy nëbb li nekk ci kaw asamaan yi nekk ci kaw suuf li fi xewoon milliards d'années li fi xew milliards d'années ci kanam mooy ki xam lépp loolu nag mbokk toujours mbir la moo xam ne bu ko jaam bi déggee dana xaw a tiit ah yàlla xam ne lépp waa kon man bàkkaar yi ma jot a def nag suñ borom nag daal di ne waaye nag mooy ki baale ay bàkkaar mooy ki baale bàkkaar ana yan bàkkaar ah man ndax sama bos ca la bokk man mi nga xam ne maa reyoon nit man mi nga xam ne maa violé woon man mi nga xam ne maa daan samp xam bi ndax samay bàkkaar ci la bokk saar bii nga xam ne dañ caa génn suñu borom jalla wa ala mu ni qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia suñu borom mu ne bàkkaar yépp lay bale mi ngi noonu mooy ki nga xam ne bépp jaam bu tuub dellu ci moom mu baal la mooy ki nangu tuub mooy at tawaab di qaabili tawb waaye nag ñu war caa gëmaale it ne mooy ko tar nu muy mbugale donte ne lu jëkk li Sénégal yi gëm ñu ko koo dégg mu ne ah waaye yàlla soxorul waay yàlla borom yërmande la yàlla danañu baal naam yàlla day jéggale yàlla day baale yàlla day yërëmaate waaye yàlla mu ne ko tar mbugal la looloo tax mu am loo xam ne kenn mënul mbugale comme nam koy mbugale muy sawaram borom boobu it ne mooy borom xéewal yi ay wama bikum min ni'matin fa min allah xéewal yooyu nga xam ne yaa ngi takkook moom bi nga nekkee sa biiru yaay ba baa ngay dugg biir bàmmeel gaa yi fi ñu toll nii di ñoo ngi nooy oxygène borom bi am déet ndax ñoo ko bokkoon ci suñuy bitel indaale ko fii ci jàkk ji déedéet partout foo dem fekk fa oxygène borom bi su ngeen paree léegi dem kër ga yàlla yàlla yombal ko mooy da ngeen fa fekk lu ngeen xiwloo mi ngi noonu lekk ga ak naan ga da ngeen fa fekk lépp lu mën a doon mooy si tawlu mboore mi ngëneel mboole mi xéewal ci moom lay jóge donte ne la gën a màgg ci xéewalam mooy yeneen ci gi mu yónni ci ñun ak alquran ji mu wàcce ci ñun borom boobu nag mu ne xam leen ne kenn yeewul ñu koy jaamu na am yow mi am xel yàlla mi not lépp yàlla mi xam lépp yàlla mi bale bàkkaar yàlla mi nangu tuub yàlla mi nga xam ne bépp xéewal ci moom moom la jóge ndax yeey nu ñuy jaamu keneen ku dul moom déedéet moo tax mu ne laa ilaha illa hu kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul moom léegi nag jaam bi xamal ne yaa ngi jëm ci sa boroom ilayhi lmasir mbokk fi ñu toll nii ñi ngi jëm ci yàlla amul benn noyyi boy noyyi lu dul wàññi na distance bi dox sa digganteeg sa boroom innama nauddu lahum adda sunu boroom mu ne ñi ngi leen di compter ak compter peut-être tu as un million de nokki kële à dix millions de nokki kële à cent millions de nokki noonu la bépp nokki benn bépp bëccëg bépp guddi bépp jéego foo dem demal Amérique demal Japon ala kulli xaal xamal ne ilayhi almasir ci moom la lépp di mujj jalla wa ala borom boobu nag ne ñi nga xam ne dañuy dàgg sante ci aaya yàlla yi du ñenn lu dul yéeféer ca mbokk jullit bi gëm heure bu déggee aaya yi borom bi subhanahu wa taala lan lay wax sami'na wa ata'na yàlla dégg nañu gëm nañu topp nañu ndax dañuy xam ne la yàlla wax rekk mooy dëgg jamais ko gëm yàlla du discuter ci aayey borom bi subhanahu wa taala amma bu dee ñu gëmul yàlla ci yéeféere wala jullit ñi nga xam ne xamuñu luy ngëm yàlla koo ci doon wax tey mais ku sàcc dañu war a dagg sa loxo mu ne ah non non non non loolu affaire yi barbarie la et puis loolu amul benn sens dagg loxo kasa wa kasa loolu mbokk da ngay gis ne loolu ci mandarga yéeféer la mooy ñu taril la aayey borom bi nga naan mais nag mais kaza mais kaza mais kaza te loolu bari na lool ci sunu ndaw ñi nga xam ne jàng nañ ci école tubaab bi ci accompagner wul njàng moomu ñu jàngal leen la nga xam ne muy seen diine jàpp nañ ne lu nekk war nañ ko mën a discuter. mais noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag ne bum la yéem ni ñuy demee ko dikk ci dëkk bi. xoolal yow ndawal julit yaa ngi am problème war liggéey xëy na amoo ko yaa ngi am problème maa ngi bëgg a takk soxna wala maa ngi bëgg kër wala maa ngi bëgg nangam nga gis ab yéeféer boo xam ne nii moom yàlla wërsëgal na ko ma nga ak ay immeuble am ma nga ak ay wotoom tey ma nga Amérique ëllëg ma nga Chine lu ko neex mu am ko ci kaw suuf suñu borom mu ne loolu bu mu la yéem xanaa xamoo ne ñi fi jiitu woon di xaw mënoo ak kuréel ya nga xam ne ñoo fi nekkoon noonu lañ meloon ay dañoo yoroon xéewulu àdduna xéewulu suuf te loolu mooy aada yàlla ci kaw suuf génération yi fi jaar yépp ña ci ëppale woon mooy yéeféer yi borom boobu nag ne yéeféer yooyu waxumaa yemoon di dàgg santeeg seeni yonent waaye amul benn yonent bu mu mës a yónni ci xeetam lu dul xeet ba comploté woon nañu pour jàpp ko pour rey ko li yaaxuzuhu te xoolal même yonent yi fi mujj ki di Zakaria ak Yaxya dañ koo rey Isa ibn Maryam bañ koy wër pour rey ko la ko yàlla yëkkati sunu borom wax bani Israil ñi nga xam ne ñooy xeet yi fi mujj te am na ay xeet yu bëri yu leen jiitu woon kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluun mi ngi noonu heure bu leen yonent ci dikkalee ñii ngeen weddi ñii ngeen rey leen borom boobu nag subhanahu wa taala ne ci noonu lañ jëloon seen caaxaan ya di ko dàgg sante ngir fay dëggug yàlla gi ci kaw suuf waaye sunu borom yàlla bette leen jàpp leen laajal naka la nekk sama mbugal seen kaw te mbokk xoolal fu yàlla jaar ak waa Nuux xoolal fa mu jaar ak waa Aad xoolal fa mu jaar ak waa Samuud ki yàlla mujj jàpp mooy Firawna xoolal fa yàlla jaar ak Firawna borom boobu nag ne nii la yeeyoo kaddug borom ba ci ñi nga xam ne dañoo nekk ay yéeféer na ñoom day ñooy ñooñu sawara te mbokk yàlla dafa décréter ci li mu wax du ci dellu gannaaw nee na dana feesal jahannama ci ay nit ak jinne loolu nag lan la koy feesale mooy ñooñu nga xam ne dañuy gis téereb yàlla bi weddi ko gis kaddu yi borom bi weddi ko na yàlla waxoon dana feesal sawara kaddu googu day dëggu na ci ñoom ba ñooñu ca lay bokk yàlla na yàlla musal ñu ñuy bokk ca ñoom bismillah
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
barakallahu fiik sunu borom mu ne allazina yaxmiluuna al arsha wa man xawla ña nga xam ne ñoo yenu arsh ak ña nekk wër arsh yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ña ngay sabbaal ànd ak seen cantug di santaale seen boroom wa yuminuuna bihi te it ñu gëm seen boroom lañu wa yastaghfiruuna lillazina amanu te dañuy sax di jéggulul ñi nga xam ne dañoo gëm naan rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma naan yàlla yow day yaa peeg lu mu mën a doon ci sa yër ci yërmande ak xam-xam faghfir lillazina taabu wattaba'u sabilak yàlla na nga jéggal ñi nga xam ne dañoo tuub te wëlbati ko topp saw yoon waqihim azabal jahim te nga fegal leen mbugulum sawara rabbana wa adxiluhum jannati adn e yàlla yàlla na nga leen tabbal ajjanay sax ba faw alati wa'adtahum bi nga xam ne yaa leen ko dikk wa man salaha min abaihim ak képp ko baax ca seen baay ya wa azwaajihim ak seen soxna ya wa zurriyatihim ak la nga xam ne mooy seen njaboot ya innaka anta al azizul hakim yow yaay aji nat lépp sa kattan gi yaay aji xereñe ji wa qihimu sayiat yal na nga leen fegal lépp loo xam ne ay ñaawteef la ay conséquences su ñaawteef yi muy mbugal ya wa man taqi sayiat képp koo xam ne musal nga ko ca ñaawteef yi ay conséquences yi cay juddoo yawma idin faqad rahimta koo ko defal bisub keroog day yërëm nga ko wa zalika huwa al fawzu al azim te loolu day mooy texe ba gën a màgg mi ngi noonu mbokk julit bokk na doomu aadama bi lu muy war a gëm mooy kumpa allazina yuminuna bil ghaib bokk na ci kumpa googu la ca gën a màgg gëm gi nga gëm sa borom jalla wa ala te borom boobu mosoo koo gis noo nit nga war a gëmee ne sunu borom asamaan yi da koo bind tegale ko muy juróom-ñaari asamaan li ngay seen mooy asamaanu benneel bi ak biddiiwam univers boobu nga xam ne nii kenn xamul fu mu yem ku dul yàlla jalla wa ala soo ko romboon da nga yegg fu ñuy wax kursi nga xam ne asamaani juróom ñaar ñaar dafa mel ne rek ay jaaro yu ndaw yoo sànni woon ci àll bu yaatu noonu lay mel ci kursi su doon mën ngaa romb kursi yaa ngi fekk arshu rahman mooy mbindaafan bu gën a rëy ci mbindaafanu yàlla yi moo tim mbindaafan yépp arsh boobu sunu borom yàlla ma nga ci kaw arsham ba doonte ne arsh boobu am na malaaka yu ko yenu yenub teraanga ñeenti malaaka lañu kenn ki yor bijjin bi nga xam ne bu ko ëffee asamaan ak suuf yépp nekk poussière ca la bokk muy israfil ñoo ko yenu yenub teraanga ba yowmal qiyaam yi ñu nekk juróom-ñetti malaaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla may na ma ndigal ma wax lenn ci malaaka yi yenu arsh nee na kenn ci ñoom diggante mbaggam ak ker noppam doxu juróom-ñaari ah junni juróom-ñaari téeméeri junni at lañ ko mën a dox diggante mbaggam ak cer ker noppam loolee mbokk da ngay gis ne ni asamaan yi duggul suñu xel kon malaaka yooyu mënul dugg suñu xel almuhim suñu borom malaaka yu tedd yooyu nga xam ne moo leen tànn nga xam ne ñoo yenu arsh rahman bokk ci ñi ko gën a jege ak ña nga xam ne ñoo wër arsh boobu mi ngi noonu ñoo wër arsh boobu jàngoon nañ ko sunu dars bi passé bal xoolal page bi nga tiim xoolal ci kaw rek day gis wa taral malaikata xaafina min xawlil arsh malaaka yi nga xam ne ñoo wër arsh boobee sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñoom day ñi ngi sax di sabbal yàlla ànd ak di ko sant yu sabbixuun di sabbal yàlla subhanallah bi xamdihi ànd ak di ko sant ñi ngi wax subhanallah walhamdulillah ca loolu lañ yonent bi alayhi salaam waxoon ne koo xam ne xëy nga wax ci téeméeri yoon subhanallah bi xamdihi subhanallah bi xamdihi boo demee kër ga essayé ko du mat deux minutes subhanallah bi hamdihi subhanallah bi hamdihi nga def ci téeméer nee na yàlla baal la say bakkaar même bu meloon ne puuru ci géej boo ko waxee suba noonu boo ko waxee guddi noonu ca it kenn du la gën a rafet ay jëf bisu keroog gàllawaay ñu bañ ko sargane subhanallah wa bi hamdihi yusabbixuuna bi hamdi rabbihim wa yuminuuna bi te ñoom day gëm nañu seen boroom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak sahaaba yi ba mujj na waaw kan ngeen jàpp moo gën a yéeme ngëm saxaaba yi ne ko ah xanaa malaaka yi yeneen ci bi ne leen ah malaaka yi nu ñuy def ba luñ gëm te ña nga nekk ca seen borom jalla wa ala di ko sabbal bu dégg ba cëg ñu ne ko ah xanaa kon ñun ñi nga xam ne ñoo la fekk gëm la yeneen ci bi yéen nu ngeen def ba du ngeen gëm te yéen maa ngi nekk nii alquran di wàcc sama kaw ma leen koy jàngal saxaaba yi ne ko ah kon ñan la yónni yàlla yónni mu ne ay maas yu ñëw sama gannaaw daa xam ne musuñoo gis benn yonent waaye ñu daal di dégg na yonent jaaroon na fi bàyyi fi ab téere ñu jàng téere bi yàlla bi gëm yàlla gëm yonent yàlla gëmi téereem ñooñu ñoo yéeme ak ngëm yàlla na yàlla boole ñu ca kon loolu la borom bi wax ne malaaka ñoom yuminuna bi ñoom day gëm nañu seen borom waaye mbokk xoolal malaaka du def bakkaar waaye dañoo bëgg seeni mbokk jullit comme xam nañ ne doomu aadama yi nit ak jinne ñoom ñoom ñoo bokk ngëm yàlla bu ñu gëm waaye ñoom yàlla naftoo ne leen ñuy def bàkkaar ca bàkkaar dafa am conséquence di la xañ yërmande yàlla di la xañ di la yóbbu ci mbugalum yàlla moo tax suñu borom mu ni ñoom de ñi ngi jéggalul ñan lillazina amanu ñi nga xam ne dañoo gëm kon kuy bokkaale bokkoo ca ñi nga xam ni dañoo gëm lu tax ndax bëgg gën leen bëgg te loolu it incha allah saar bi ñu nar a jàng ci kanam di suratul fusilat su boobaa sunu borom danañu wax bu ñu demee yowmal qiyaama naka la malaaka yi di teeroo jurit ñi naan leen nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laaxira ñoo nekkoon seen xarit nekkoon seen farandoo moo tax ñoom ñi ngi ñaan yàlla ay yàlla yàlla na nga baal ñi nga xam ne dañoo gëm mooy yastaxfiroon la dina amanu borom bi mënoon naa yem foofu waaye yàlla xamal ñu naka la ñuy jéggulule ñi gëm yàlla mu ne dañu naan rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma yàlla lum mën a doon yaa ko pecc sa yërmande ak ci sa xam-xam gis nga ñi ngi jiital yërmande yàlla avant xam-xamu yàlla ndax yàlla bu doon atti niñ ci xam-xamam rek ñu bëri dana leen alak avant mu leen di yërëm am déet waaye yàlla mu ne yërmande moo jiitu mbugalam loolu tax peeg nga lépp ci yërmande peeg nga ko ci xam-xam loolu it muy wone ne doomu aadama bi la muy def lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw munul fexe ba yërmaande yàlla munu koo dabantal su dee tuub na dellu ci yàlla moo tax malaaka yi na ko ay yàlla képp koo xam ne tuub na dellu si ci saw yoon ay yàlla yàlla na nga ko jéggal faxfir li lazina taabu wa tabau sabila loolu da ngay gis ne sunu borom mi ñu ko wax ci malaaka yi donte ne ñaan la boo xam ne yow it sax mën nga koo ñaan man ngaa wax ay rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma allahuma fir li warhamni ila axiri yàlla yaa feeg lépp ci sa xam-xam bi si yërmande bi yàlla na nga jéggal ci yërëm ma mi ngi noonu ci jéggalu jurit ña mi ngi noonu borom bi mu ne mi ngi ci teg naan yàlla yàlla na nga leen musal ci mbugalum jaxiim yàlla na nga leen musal ci mbugalum jaxiim loolu itamit mbokk lu ñuy dégg malaaka yooyu bokkuñu genre mooy ñun ay nit lañ ñoom ay malaaka lañu malaaka yi duñ def bakkaar ñoom ñun bokkuñu dara waaye ngëm gi ñu bokk tax na ñu ñuy ñaanal yàlla waaye yow mi nga xam ne kii sa mbokku nit la nag mën na am sax bokk ngeen dara ay dëkkandoo ngeen wala ay xame ngeen loolu tax mbokk bul fàtte di ñaan yàlla jéggal la jéggal la nga xame ne nii mooy say mbokk na doon ñooñu dañoo faatu na doon ñooñu dañoo doon ñoo xam ne ni ñuy dund lañu te mbokk ñaan ka ka gën a soxla mooy ka nga xam ne dundatul ma nga ca boroomam kookoo gën a soxla ñu jéggalul ko ñaanal ko loolu tax farata la ci ñun kenn ci ñun bu faatoo mbooloo fokk ñu daje daa di koy tiim teg ko ci sunu kanam ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko ñu doog koo suul buñ ko deful dëkk bi yéppay am bakkaar loolu mi ngi noonu sama mbokk bi ma sësal mi ngi may wax benn cousin soxnaam buñ ne buñ ko téléphoné léegi ne dafa faatu yàlla na ko yàlla jéggal ca yërëm ko te jéggal mboole mi nii bi julit kon loolu itamit ngay def di ñaanal julit ñi di leen jéggalool rabbi xfir lii wali walidayya walil muminina wal muminat nuux wax na ko ibrahima wax na ko ngal la waay dee ko saxal dee ko wax lu bëree bëri bés bu nekk bu ko fàtte bu ko fàtte sun borom mu ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbika wa lil muminina wal muminat del jéggul say bakkaar tey jéggulul julit ñu góor ñi ñu jigéen ñi loolu tax bari lal footaloo di wax rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muminina wal muminat yàlla yàlla nag ma jéggal ak samay waajur jéggal mboolem julit ñu góor ak mboolem jigéen julit ñu jigéen malaaka yi ne yàlla yàlla na nga leen musal ci mbugalum sawara waaye itamit ñu boole ci ne ay yàlla yàlla na nga leen tabbal ajjana bi nga xam ne yaa leen ko dikk te mbokk yàlla dikk ñi gëm yàlla ne ajjana mooy seen wàccuwaay waaye yàlla yàlla na nga ca boole képp ku baax ca seeni baay ak seeni azwaaj azwaaj mooy ay woy dencante na doon ñooñu ay jëkkër lañu wala ay jabar lañu bu dee jigéen a seeni seeni borom kër bu dee góor a seeni soxna wa zurriyatihim ak seen njaboot ca mbokk li tax malaaka yi wax lii xoolal bu baax malaaka yi te bu ñu wax rek yàlla dugaleen àjjana ak seeni baay ak seeni soxna lu ñu wax waman salaha mooy ku baax ku baax mooy kan mooy ki deeyaale ngëm ki baax mooy kan mooy ki deeyaalewul shirkul akbar léegi nag ku mel noonu bu dee dafa dee tey jii sunu borom yàlla ci mbaaxam famille bu nekk dana xool ka ci gën a kawe daraja ci ñoom ci biir aljanna mu jël mboolem famille ba baay yaag doom yaag frère yaag yépp boole leen ak ñoom ci àjjana yu kawe ya loolu ci ngëneelu yàlla la dugg àjjana moom fokk nga am ngëm gu sell def lu baax amaa nag rafu darajaat yay am ca biir aljanna loolee ci ngëneelu yàlla yàlla dana ko defal waaju baax ba ay darajaam àjjana téeméeri daraja la mi ngi noonu ba ci gën a kawe mooy firdawsil aala yàlla na yàlla def ko suñu wàccuwaay waaye kii faatu woon ay baayam ñi ngi 40 yaayam ma nga 50 soxnaam ma nga 20 ay doomam ña nga 70 sunu borom yàlla ci mbaaxam ñoom ñëpp la yéeg ca daraja yi ku gën a kawe ci ñoom ca loolu bokk na ca lañu ko may mooy ñaanug malaaka yi yàlla yàlla fayal ñu leen ñu ne ay yàlla innaka antal azizul hakim yàlla yaay ki not lépp sa kàttan yaay ki xereñe xam ka yeeyoo nga defal ko loolu ak ka yeeyewul ay yàlla ñoom day nattoo nga dem ñu def ay bàkkaar yàlla lay musibay bàkkaar yooyu yàlla yàlla na nga leen ko fegal ca ëllëgi ki si biir képp koo fegal conséquence su bàkkaaram ku mel noonu day yërëm nga ko ca la chaque mbokk julit bokk na yërmaane bi gën a am solo ci àllaaxira mooy yàlla musal la ci sawara bu la yàlla musuloon ci sawara même boo continué woon nekk poussière sax da ngay gis na yow yaa ngi ci xéewal gu rëy yàlla subhanahu wa taala teg ca ne malaayka yi ne zalika huwa alfawzul azim lii day mooy la gën a màgg ci la gën a màgg su ko defee yi loolu yëpp yow ndawal jurit toujours de ko sóoraale xamal ni la réussite des réussites du ne jàng ba nekk expert ci lu mu mën a doon du na jàng ba nekk président de la république du na jàng ba nekk milliardaire wala kër këri àdduna ba dajale loo mën a dajale waaye dëgg dëgg dëgg texe mooy góor góorlu ba bokk ci ñi donn ajjana ja nga xam ne boo fa duggee moom doo fa génn ba faw góor góorlu ba mucc ci sawara lii mooy dëgg dëgg texe yal na yàlla def ko muy suñu texe def ko texe mboole mi jullit bismillah
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب barakallahu fiikum sunu borom mu ne inna allazina kafaru yunaadawna ña nga xam ne ñooy yéeféer yi nag yowmal qiyaama daañu leen woo la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum mere ga leen yàlla mere woon day moo gën a màgg mere gi ngeen mere seen bopp tey is tud'awna ila al imaani fa takfuruun jamono jiñ leen di woo jëme leen ci ngëm yàlla ngeen weddi qaalu rabbana amattana snatayni ñu ne ay yàlla yaa ñu roy ñaari yoon wa ahyaytana snatayni dekkal ñu ñaari yoon fa'tarafna bi zunubina yàlla nangu nañ ne su nangu nañ ne def nañ ay bakkaar fëhal ila xurujin min sabil ndax yàlla am na ca génnuwaay benn yoon bu ñu mën a jaar ba génnuwaat delluwaat àdduna ngir jaamu la zalikum bi annahu ida du'iya allahu wahdahu kafartum lool day nekk na ñeel leen la ko waral mooy bu ñu ma san woo yàllay kese ngeen weddi wa in yushrak bihi tu'minu amma buñ ca boolee keneen ku dul yàlla ngeen gëm ca day fal xukmu lillahi alaliyi alkabir atte yépp ñeelul ku dul yàlla mi aji kawe ji aji màgg ji huwa alladi yuriikum ayaati yàlla moomu moo leen di won ay kawtéefam wa yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqa moo leen di wàcceel jële ci kaw asamaan wërsëg wa ma yatazakkaru illa man yunib waaye kenn du fàtte lu ko mu jëriñ ko lu dul koo xam ne dafay dellu ci boroomam jalla wa ala mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu malaaka yooyu nga xam ne ñooy suñuy farandoo ñooy suñuy xarit dañuy xam jullit ñi tey jii da ngay gis su ndaw ñi nekk fii mboolem ñiy football ca Espagne ñiy football ca Amérique ñiy football ca France xam nañu leen te mën na am footballkat yooyu koo ci laajoon Sénégal sax peut-être xamul sax fu Sénégal féete ci kaw suuf kon naka noonu itamit malaaka yooyu doonte ne yow xamoo leen gisoo leen ñu ngi nekk des milliards et des milliards dañuy kontaan ci jullit yi nga xam ne dañuy jaamu yàlla amma bu dee ne yéeféer yi su ñëwee yowmal qiyaama dañuy mere seen bopp suñ borom mu ne yowma yaud zalimu ala yadayhi dangay gis ku dugal ay loxoom ci biir gémmiñam matt bam dagg ay waay aka neexoon ma toppoon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waay aka neexoon ma sori woon diw moo ma propagande ba génn ma ci sunna yonent bi yaa laytanii lam attaxis fulaanan xalila mere seen bopp ci ñàkk gi ñu doon ñàkk jaamu yàlla su ko defee malaaka yi woo leen na leen gis ngeen ni ngeen meree seen bopp na leen yàlla meree woon moo ko raw yàlla keroog bi ngeen di jox seen étage yi di leen wàcceel seen katkat yi di leen jox seen compte bancaire yi ngeen nekk ci jongoma yi di bànneexu teewul merum yàlla moo gënoon tar di ngeen mere seen bopp tey gis ngeen mbokk julit donc lu mu lay wan mbokk xam leen ne ki yàlla gërëm kenn du ko xàmmee ci ni moom moo yor xiiwalu àdduna yi mën na am tey ki yàlla gën a gërëm ci Sénégal mi ngi ci biir prison ba mën na am tey ki yàlla gën a gërëm ci Sénégal ma nga ca lalu hôpitaux yi tëdd mi ngi noonu naka noo ñett ña yàlla bañ kenn du ko xamee ci xiiwal ya ñi nekk mën na am ki yàlla gën a bañ ci ministre du gouvernement bi la bokk wala ci milliardaires yi la bokk looloo tax suñu borom mu ne jamono bi ñu leen di woo ci ngëm ngeen weddi ne leen yàlla mere woon day moo gënoon a tar tey ni ngeen meree seen bopp bu ko defee ñu ne yàlla ay yàlla yaa ñu rey ñaari yoon dekkal ñu ñaari yoon borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax donte ne lu ëpp ci ñoom li ñu wax mooy rey bu jëkk ga mooy yàlla bi mu lay sos ci dee nga jóge doomu aadama bi ngay commencé yàlla di la créer nga nekk am jour un ci sa biiru yaay amoo woon ruux un mois deux mois trois mois quatre mois après quatre mois la yàlla lay doog a indi ruux ci yow daa di lay dekkal ci sa biiru yaay ngay dund sa biiru yaay nga génn ñëw kaw suuf soo ñëwee kaw suuf da ngay gis da ngay dee deuxième dee ñu suul la yowmal xiyaama ñu dekkalaat la nga dekki deuxième dekki kon loolu mooy ñaar yooyu ñu ne nag ay yàlla yaa ñu jële woon ci zéro dugal ñu suñu biiru yaay dekkal ñu fa génn nañu reyaat ñu indi ñu ci biir bàmmeel dekkalaat ñu kon yàlla am nga kattan delloowaat ñu adduna ay yàlla delloowaat ñu adduna ñu jaamu la jaamu gu sell hal ila xurujin min sabil gis ngeen seen borom yàlla na déet loolu koy moom moom du lu ñuy wax seen borom yàlla na déedéet lii waral tey ñu condamné leen fii ba faw mooy yéen fu ñu leen daan mës a wax yàlla kese ngeen weddi bëggu leen dégg yàlla kese amma buñ tuddee keneen ku dul yàlla nag ngeen daal di gëm te loolu mbokk musiba la boo xamee ne nii jullit ci tey ñu ngi koy dund jullit ñu bari tey sooy wax ak ñoom ne leen billaahi duñ la gëm waaye booy wax ba ne leen barke cheikh nangam ñu ne dog na am déet ñu noonu lu ko defee gaa yi dem nañ ba jàpp nañu ne ki nga xamee ne nii dafay waat wax yàlla kese ndax day fo day fo ba da ngay gis ñu bari te wallahi même da ngay gis borom xam-xam yi nekk ci dëkk arab yi sax dañ koy wax ay ñoo xamee ne nii dañuy ñëw di jëflanteeg ay nit daa di ne billahi wallahi taala yi waa ji ne leen waatal ci barke sëñ diw ñu daal di ah déedéet loolu moom ñi mu ñëw waat ci barke sëñ diw fekk dañuy fen am maa mën nañu waat ci yàlla rek fekk dañuy fen loolee mbokk da ngay gis ne musiba mënta passé loolu su ko defee demoon ci jataay yu bari qaala allah qaala rasulullah qaala la xaru sa dañ naan teg waaye boo nee sëñ diw dënn yépp rëcc ñu fetexu ba ko kon da ngay gis ne kooku lañ gën a màggal ci yàlla loolu nag mbokk seytaane moo koy def ngalawaay mbokk jullit xamal ni ki nga war a gën a bëgg mooy sa borom jalla wa ala walazina amanu ashaddu hubban lillah ka nga xam ne moo ca tegu mooy sa yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo la war a gënal sa ndey ak sa baay Aboubacar Omar Ousmane asamaan ak suuf li fi nekk gannaaw yàlla subhanahu wa taala yonent yàlla bi nga war a gën a bëgg keneen koy teg na nga doog ko caa teg waaye am yéeféer yi ak jullit yey woote woone jullit lañu ba pare am comportement yéeféer bu dee yàlla kese lañu wax mm, mm. waaye yàlla jiw aha bu boobaa nag la ñuy doog a d'accord ak yow sunu borom yàlla nag ne dañoo xamul ndax fal xukmu lillahi alil kabir amul kenn kuy atte di ànd ak yàlla yàllay atte lépp bu dee xéewal yàllay indi bu dee mbugal yàllay indi bu dee dogal yàllay dogal bu dee loo yàllay tëral amul kenn kuy texe ku dul yàlla amul looy mën a jot ku dul yàlla kon kay nañuy dayloo yàllay kese ndax fal xukmu lillah yàlla kese mooy atte moom mi nga xam ne mooy al ali al kabir moo tax léegi bi ngay julli yaa ngi naan allahu akbar mooy al kabir boo sujjuutee yaa ngi naan subhaana rabbiyal ala ndax mooy al ali mooy ka nga xam ne mooy aji kaway ja borom boobu subhanahu wa taala mu ne mooy ki nga xam ne moo leen di won ay aayaam ca aaya yooyu boo delloo ci téereb yàlla bi borom xam-xam yi dañu naan aaya yi yàlla wone ci jaww ji ci lim bind moo ëpp aaya yi yàlla yi digle ay jullee ki koor ak ibadat yàlla wax nañu biddiwam yi wax ñu garab yi wax ñu montagne yi wax ñu nangam guddeeg bëccëg amul lenn lu ñu yàlla bàyyi ci ay kawtéef yoo xam ne doomu aadama buñ ci xalaatee naam gis ñu seen borom waaye dañ ci gis màggaayam gis ci kattanam gis ci xikmaam gis ci yërmandeem waaye gis ci it ne lépp lu mu digge mën na ko jalla wa ala waaye nag borom bi nee na amul kenn koy fàttaliku lu dul koo xam ne xolam day dellu ci yàlla jalla wa ala te lu bëri ci scientifique yi kawtéef yooyu yëpp gis nañ ko mais luñ pour ñoom lu tax li am dañ naan la c'est le hasard amma yow jullit bépp aaya boo gis sa aaya borom da nga naan rabbana ma xalaqta hada batila yàlla bindu li ci neen bu guddi ñëwee mooma bu taw ñëwee mooma bu lay ñëwee mooma bagg géej gi mooma lépp loo xam ne am na di yëngu ci kaw asamaan ak suuf yàlla moomu dara rëcc ko moo tax mu ne wa ma yazakkaru yatazakkaru illa man yunib kon incha allah ñu yeggalee ak Cheikh Aliou
خلوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار jazakallahu xayra sunu borom subhanahu wa taala mu ne fadu llaha muxlisina lahu diin woo leen seen borom sellalal ko diineem ji walaw kariha alkaafiruun ak lum naqari naqari yéefér yi rafiu darajat mooy aji kawe ay darajaam zul arshi mooy borom arsh ju màgg ja yulqi ruuxa min amrihi ala man yashaau min ibaadi mooy sànni ruux ga ay wahyu ga muy wahyu bu bawoo ci ay mbiram di ko wàcce ci kaw ku ko neex ci ay jaamam li yunzira yowma talaaq ngir yi muy waaraate ci bisu daje ba yowma hum baarizuun bis bi nga xam ne ñoom ñépp daañ leen feeñal laa yaxfa ala allahi minhum shay'un du nëbbu ci yàlla ci seen mbir ci seen mbir dara suñu borom dana wax keroog li manil mulkul yawm moo tey ana kan moo am nguur àll na seen ndaw suñu borom ne lillahi alwahidi alqahar nguur ga dana ñeel yàlla mi kenn ki nga xam ne mooy aji not lépp jalla wa ala mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne na ngeen woo yàlla sellalal ko diineem yonent bi alayhi salaam mu ne addu'a huwa al ibada woote mooy jaamu yàlla kii woo yàlla sellal ko diine mooy ki koy jaamu bañ ko bokkaaleeg dara toroxlul ko toroxlu gu mat sëkk ànd ak bëgg ko jalla wa ala ab julit di war di ñaan yàlla ci léppam ñaan nga gën a màgg mooy nga ñaan ko mu jubal la ila siratin mustaqim moom lañ koy ñaan dix-sept fois muy farata gannaaw ba ñaan ko lépp ñaan ko njaboot gu baax ñaan ko jàmmi àdduna jàmmi àllaaxira waaye boo koy ñaan bu ci boole kenn boo koy ñaan bu ci boole kenn bokk na ku gën a tedd ci jaamam yi muy sunu yenent muhammad alayhi salaatu wassalaam booy ñaan yàlla ñaanalaalil muhammad waaye bul ñaan yàlla ak muhammad am déet boo ko defee def nga lu musiba bu rëy rëy rëy kon dee leen ñaan yàlla ay dee leen woo yàlla ngeen sellalal ko diineem ji ak lu mu naqari naqari yéeféer yi te mbokk yéeféer bëgguñu diina ju sell ci kaw suuf waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa yéeféer yi buñ sañoon jullit ñi dañuy xooj seen diine comme ñoom ni ñu xooji seen diine mooy l'islam de France mi ngi noonu wala l'islam de nangam amma diine bi bawoo ci yàlla pour ñoom c'est les intégristes c'est les fanatiques c'est les n'importe quelle étiquette daal ñu ngi ko takkal pour lan mooy ki bëgg ne damay dund la yàlla wàcc yoon ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom mu ne lu mu naqari naqari yéeféeri yéen sax leen sellelu ko diineen moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci azkaaram ñoom daan def bu sëlmalee sahaaba yi di ko dégg muy wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku lahu lhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah lahu lni'ma wa lahu lfadl wa lahu lsana'u lhasan la ilaha illa allah mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun mooy ñun de yàlla rek la ñuy jaamu di ko sellal diineem ak lum naqari naqari yéeféer yi baram boobu mu ne mooy rafi'u darajat naam li ma leen doon expliquer nga xam ne ki koy expliquer sax comprendre ko muy asamaan yi ak kursi yi ak arsh suñu borom ma nga ci kaw arsham ba ay darajaam kawe na tiim jaamam yépp mu safaanoog ñi jàpp ne yàlla ngi fépp yàllay lépp ilaaxiri loolu mbokk pas-pas bu yàqu la waaye dañuy xam ne yàlla ma nga ci kaw imin daafanam rafiu darajat baram boobu mooy borom arshu rahman wax naa leen sànq arsh boobu nga xam ne la ko yàlla bindee mooy al yaqut wal marjan mooy li gën a taaru ci mbindaafanu yàlla yi gën a yaatu ci mbindaafanu yàlla yi ëmb mbindaafanu yàlla yëpp mooy al arshu rahman baram boobu subhanahu wa taala nee na mooy sànni ruux ci ku ko neex ci ay jaamam mbokk doomu aadama yi ñaaru ruux la soxla ruux genn gi mooy tax ñuy dund kooku jullit ak yéeféer ñëpp am nañ ko bu yàlla jëlee ruux gi ñu ne nañ ko suuli beneen ruux gi mooy ruux bi dundal sa biir xol ruux googu mooy alquranul karim di leer gi yàlla wàcce kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman nii laa wàcce ruux googu bokk suñu mbir xamoo woon téere xamoo woon ngëm walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa min ibadina sa bët bi bët yi kanam gi dafa soxla nga am leeru bët pour mën a gis sunu borom nag nee na du bët du gumba dëgg mooy ku say bët mooru waaye gumba dëgg mooy ku xolum gumba ay ndax amul leer goo xam ne moo tax muy xàmme dëgg ak fen su ko defee mbokk julit alquran mooy sag ruux ruux googu moom ngay dem ci kër ga mën na la nii ngay comporté woo ak soxna yi nii ngay comporté woo ak waajur yi nii ngay comporté woo ak njaboot gi nga dem ca marché bu mu ne la nii la de moytul pesé yi bu lekk riba bu lekk nangam nga dem tolu jihaat mën na la nii ngay def nga dem foo mën a dem ci ay tukki mën na la nii ngay def ni ngi ànd ak yow ni sa ruux ànde ak yow looloo tax ba nga la waay ndawal jullit moytul bokk ci li ma dégg ci lenn suñu intellectuel yi nga xam ne dañ fiy jóge dem Occident suñ ñëwee gis ni dëkk bi jaxasoo ñu jàpp ne lii kenn mënu koo booleeg jaamu yàlla ba kenn ci ñoom mi ngi may nettali benn waay boo xam ne nekkoon na fi di góorgóorlu bi mu dajeek moom fële nga xam ne mooy États-Unis mu bàyyi presque diina complètement mu ne ko waaye yow nii nga nekk nag mu ne ko booy daal diina ji dénkaane naa ko aéroport su ma delloo dinaa ko jël mais fii kenn mënu fi jaamu yàlla mbokk loolu njuumte la wallahi kees yi nekk sunu morgue bi di ci bëri mi ngi jógee bitim réew ndax ku la wax ne nga dellu siwaat bitim réew da nga dellu siwaat Sénégal su ko defee ni nga àndee sa ruux àndee koog alquranul karim foo mën a nekk ci kaw suuf na nga ànd ak sa boroom ay bëgg-bëggam loolu moo tax mu ne ruuxan min amrina borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne loolu wàccee nañ ko ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy ki mujjoon ku ko yàlla di wàcce ci moom ngiree nga waar nit ñi xupp leen ñu waajal yowma talaaq talaaq bi bokkul ak talaaq ba ngay jàng suratu talaaq talaaq boobu mooy fase amma talaq bi mooy daje daje boobu mooy ban daje keroog la aadama alayhi salaam di dajeeg sëtam bi mu mujj a jur ci kaw suuf keroog la nit ñi ak jinne yi di daje keroog la malaaka yi asamaan di wàcc di dajeeg nit ñi nekk ci kaw suuf waaye mbokk yooyu yépp ay daje la jur gi fi mas a jaar yépp bàyyi yépp dañ dañ ñëw yomal qiyaama waaye daje ba gën a màgg mooy daje bi ngay daje ak sa borom yow bor yow jaam bi mi ngi noonu ya ayuha al insan innaka kaadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi xamal ne yaa ngi kër këri rek yaa ngay dem ca commerce ba ca tukki ba ca étude ya ca soxna ya ca nangam di kër këri rek waaye xam nga lu mujjee bis da nga ñëw nga faatu bis dana ñëw malaaka yi ñu la pëkk pëkk sa bàmmeel génn la escorté la yóbbu la ba taxawal la sa kanamu boroom doo gis ndey doo gis baay doo gis sëriñ doo gis xarit doo gis doom doo gis kenn kulluhum atihi yawm alqiyamati farda ku nekk indi yow kese nga daje ak sa borom borom boobu daal di lay attee foofu boo fa jógee imma ila aljanna wala imma ila naar loolee di daje boo xam ne ku nekk ci ñun war na ko waajal waajal ba nag suñu borom nee na qul wa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada lañ koy waajal mbokk du CFA du dollar lañ koy waajal du ay compte bancaire wala étude supérieure lañ koy waajal mooy fexe ngëm goo xam ne bokkaale woo ko ak sa borom ak jëf-jëf ju sell yal na yàlla yombal ko ci ñun ba daje ba doon daje boo xam ne dañuy dajeeg ngërëmal yàlla suñu borom yàlla mu ne keroog yow ma hisin hum barizoon keroog la doomu aadama yépp di feeñ yàlla mancé la montagne yi mancé li xur yi ni ngay gise ki suuf si yow noonu ngay gise ki nekk à des kilomètres doomu aadama yépp feeñ ba pare dara du nëbbu ci seen mbir ci yàlla dara lépp luñ mës a jëf ci kaw suuf ci lu baax ci lu bon lépp sunu borom yàlla nu ko bëcc muy ab téere sa kanam borom boobu nag ci bis bu màgg boobu lay taxaw tiim mboolem ñi fi mas a jaar ci ay buur ak roi ak loo leen mën a tudde daal di taxaw ne waaw hey jaam yi tey kan moo am nguur allah la seen ndaw kan moo am nguur su ko defee nit ak jinne ak malaaka yépp ànd wax benn kaddu mooy lillah yàlla rek moom nguur mooy kan alwaxid kenn la amul ko mbokkaaleel ak qahar ki nga xam ne moo not mboolemi buur yi fi nekkoon gaa yi Hitler mi ñu doon wax Napoléon Firawna Namrud buur yu baax yi yonent yi malaaka yi ñëpp al qahar dana leen not faat leen maasal leen loolu it ñëpp ci la ñuy nekk su ko defee ak a neexoon doomu aadama yi nanguloon ko nguur gi ci adduna bala ñu dem alaxira ak a neexoon ñun ñëpp ñu xam ne yàlla rek kay buur jël ay luwaam di ko attewoo suñu kaw ni ñu nangoo di ko jullil di ko wooral di ko aj makka ñu nangul ko ci suñu parlement yi nangul ko ci suñu palais de justice yi nangul ko suñu kër yi nangul ko suñu lépp ndax moom dong mooy buur ca ëllëg gi si biir danañu dajale atte ñu ca la nga xam ne mooy la ko soob su ko defee kon bokkoon na la yombal sa mbir alaxira nga bokk ñu ko jébbaluloon fii ci àdduna yal na yàlla boola ñu ñi ko jébbalul àdduna ak alaxira yal nañu yàlla atte ci yërmandeem àdduna ak alaxira yal nañu yàlla boole ci ñooñu àjjana musal ñu ca sawara yal nañu yàlla fayal malaaka yu tedd yooyu nga xam ne ñi ngi ñu tiim yal na yàlla wërsëgal ñu bëgg leen yal na yàlla wërsëgal ñuy jaamu ko comme na nga xam ne noo ko malaaka yi di jaamoo wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain seen bakkan maa ngi koy jëlee àjjana wa ala kulli haal suñu borom dane inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla mu ne maa jënd ci jurit ñi seen bakkan ak seen alal ndax dama leen di faye àjjana loolu yow julit ni nga koy déggee mooy sa bakkan bi jaay nga ko yàlla ngir am àjjana kon xamal ne bakkan bi moomatoo ko fexeel ba bu ci def lu neexul yàlla lépp loo xam ne neexul yàlla bakkan bi da koy sori Miss Monde ba doon dafa ñëw fëgg la fu kenn nekkul woola ci lu ak njaaloo da ngay xam ne bakkan bi moomoo ko kon doo ko fekk ci loolu ki la bëgg liggéeyloo ci sàngara sa bakkan bi moomuloo ko ki la bëgg def loolu mu mën a doon bakkan bi moomuloo ko waaye nga xam ne général Darbin bi moomu ko président de la république moomu ko sa ndey moomu ko sa baay moomu ko am na alal ci alal ji it nga xam ne du sa alal heure boo xamee ne nii gis na lu ci yàlla santaane masalan génneel zakat da nga ko génne dimbalil diw man nga ko da nga ko def amma fépp fu xaraam même bu doon un franc cinquante sax doo ko fa dugal ndax da ngay xam ne alal ji moo moo ko alal yàlla la loolu daal képp koo xam ne jébbal nga sa bakkan jébbal sa alal sa borom insha allah soo demee yomal qiyaama yàlla na la sa marchandise ma nga na lecc mooy ajjana yàlla na yàlla defal ñu ko non bismillah non dama bëgg laaj ban moment la ci dundu doomu aadama dem suñu borom dootul baal bàkkaar loolu bokkaale
sunu boroom ban moment la ko dul baal bakkaar loole da ngay gis ne ñaari étape la benn étape bi mooy bu dee dafa sukuraat bu dee dafa sukuraat su boobaa sunu boroom yàlla subhanahu wa taala dootu ko baal inna allaha la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir sunu boroom nee na yàlla dana nangul jaam bi tuubam fiig sukuraatul looloo tax boo demoon fekk nit ci lalu hôpital ngalawaay ñaax ko ci mu tuub ay bakkaaram yàlla na ko mbaax yërmande la donte ne ne léeg-léeg doomu aadama yi duñ mën a seede sa tuub masalan tey ji waa ji agresseur la woon ñu dem ba dammte ko yàq ko mu tëdd ni tuub na kooku ñun duñ mën a seede tuubam mais bu yàlla xamee ci xolam ne moom kat du ne daa salit waaye bu delluwaatoon am kattanam it dana bàyyi agression bi bu amoon kattan dana bàyyi njaaloo bi bu amoon kattan dana bàyyi naan sàngara bi bu yàlla xamee loolu ci xolam yàlla dana ko nangul tuub in yaalamillahu fi qulubikum xayra amma nag bu dee ne yow ba ngay tuub da ngay tuub rek ngir ne da ngaa ñàkk pexe ah loolu su boobaa suñu borom yàlla du la ko toppee ndax yàlla moo xam nekk ci biir dënn yi am naa ñaareelu étape ba ñun ñaanuñu yàlla sax fekke ko mooy bis bu ñu demee ba jant bi fenk sow nga xam ne adduna day yàqu sunu borom mu ne yow ma taati baadu ayaati rabbika laa yanfau nafsun imaanuha ma lam amalat min qablu aw kasabat fi imaanuha fi imaaniha ghayra suñ demee ba àdduna tukki tuub amul benn njëriñ waaye bu dul looloo nañ góorgóorlu tuub bala ñuy sukuraat naam ala kulli xaal naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah
am nañu wax ne wax bi wax la salaamaaleykum ba ñu ci ayib bi ak loolu weer amal la dañu wax salaamaaleykum ala kulli xaal nit ki dafa war a wax asalaamualeykum asalaam loolu mooy jàmm nekki turu yàlla amma ñun lu ci bari comme dégguñu arab moo tax ñu wax rek salaamaaleykum mi ngi noonu donte ne da nga da ngay gis nit ñi sax bu ñu demee ci mbedd mi kii day ñëw ne salaamaaleykum kii ne ko maaleykum salaam yaa ngi dégg yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem danañu ko bindal tuyaaba waaye nag loolu lépp yàq la da nga war a wax assalaamu aleykum mu ne la wa aleykum salaam mi ngi noonu assalaamu aleykum wa aleykum salaam kon assalaamu aleykum yi noonu la ñuy nuyoo waaye noonu la ñuy génne ci julli mooy assalaamu aleykum wala assalaamu aleykum wa rahmatullah wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu naam ah ah pourtant man jàpp naa ne ci loolu laa jëkk a wax dama ne la ne loolu ñàkk dégg làmmiñu arab bi kese moo tax ñuy jëfandikoo loolu waaye la nga xam ne mooy julli lañ ci yonent bi jàngale woon mooy assalaamu aleykum du salaamu aleykum donte ne salaam loolu ci façon nuyoo yi la da ngay gis ne malaaka yi bi ñu ñëw ci ibrahim fa qaalu salaaman qaala salaam salaam nuyoo la waaye nag bu ñuy génn ci julli dañuy wax assalaamu aleykum loolu la ñuy génne ci julli mi ngi noonu waaye loolu la loolu lañ génne amaa nag comme ni ma la ko waxee mooy lu bëri ci ñun maadaama dégguñu arab bi ca jànguñu la nga xam ne mooy fiq da ngay dégg nit ñuy wax di wax rek looloo tax njuumte yu bëri di am ci loolu boo déggoon fatiha yi ñuy jàngit téeméer yàq da ci am boo dégg nodd yi ñuy nodd téeméer yàq da ci am loolee loolu dañuy gis ne la ko waral mooy ñàkk dégg bi ñuy dégg langue bi ku nekk ci ñun war a cee def kémtalal kattanam amma la ci sa kattan yeggulul xamal ne yàlla subhanahu wa taala waasiul maxfira wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain